bu fekkee nag néew ba ragaluñ ci woon genn soppiku ñu jullee ko ci waxtu woo xam ne dañoo sib ku ko ca jullee waaye agul ca araam kooku moom ndegam xas nañ ko jullee rek kenn du baabuwaat jullee ga moo xam suul nañ ko moo xam suuluñu ko nga xam ne kon néew bi ñu jullee ko ci waxtu wu araama jullee ak waxtu wu siba jullee wuute nañu ndax bu dee waxtu wa araama la jullee moom bu fekkee jotuñu koo denc mooy suuluñu ko kon nañ ko baamu nañu ko baamu ci waxtu wa nga xam ne ca lañ digle ku ko ca jullee waaye nag buñ ko xasee suul ba noppi moom deesul baamuwaat jullee ga moom la borom saraa bale di wax naa wa ida xushiya xalayha attaxayuru wa sulliya xalayha waqta manhin aw waqta karahatin laa tuhaadu assalaatu xalayha waqtal jawaasi dufinat am laa wa amma in lam yuxsha xalayha attaxayuru fala ihaadata in sulliya xalayha bi waqti karahatin dufinat aw laa wa kasa bi waqti manhin in dufinat wa illaa oyidat kon nag nga jàpp waxtuy sib yi ak waxtuy araamal yi ba mu leer la jàppal ne gannaaw bu fajar fenkee nga xam ne noddu salaatu jot na dañuy sib mbooleem xeeti naafile yépp ba mu des ñaari rakkay fajar rekk bu fekkee ne nag julleeg néew la moom daañu maye ku ko def ci yooyu jamono ba kera bët di xaw a set nga xam ne bu nit dee ñëw boo ko xoolee man koo xàmmee li fekk booba nag sib nañu sax jullit naa fi la waaye daañu fa maye boo dee jàng alxuraan ba toll ci bérébu sujoot nga sujoot boo fa bëggee jullee ab néew mën faa jullee ab néew sib googu nag mooy jàll ba catu jant bi tàmbalee génn di fenk bu catul jant bi tàmbalee génn moom naafi la day araam jullee ab néew day araam sujjóot sujjóot alxuraan day araam ba keroog jant bi lépp di génn jant bi fenkee ba lépp génn nag ñu delluwaat sibaataat yooyu ba kera jant bi yëkkatiku lu tolloog ñetti meetar ci sa xoolu bët loolu mooy gannaaw bu fajar fenkee loolu lañ cey wax gannaaw boo jullee takkusaan nag ba noppi dañuy sib naafila ba kera jant bi tàmbalee so bu jant bi tàmbalee so te lépp dugagut mu daal di araam bu soxee lépp lépp nag bu dee ci yoonu maali itam li fekk julleeguñ timis dañuy sib naafila waaye nag ñun la ko leerale léegi gannaaw bañ jullee takkusaan li fekk muxtaarum takkusaan di jeex daañu maye ku fa jullee ab néew geneen naafile nag moom deesu ko fa man waaye daañu maye ku fa julleeb néew daañu maye ku fa sujjóot sujjóot alxuraan boo dee jàng ba toll ci bérébu sujjóot nga xam ne kon yaari yi moom muy sujjóotu alxuraan ak julleeb néew daañu ko maye ku ko def gannaaw takkusaan li feek muxtaarum takkusaan di jeex te mooy ker yi jàppaloo takkusaani suuf jot bu dee gannaaw suba itam muy gannaaw fenkuk fajar daañu maye ku def yooyu yaar ba kere muxtaaru suba di jeex te muxtaaru suba mi ngi yem ci bët di tàmbalee set ba nga xam ne bu nit dee ñëw te muurul kanamam nga mën a xàmmee kanamam kon ñu jàpp takk-takk yooyu baabul li ab bunt la fil imaamati ci jiite wa xukmul imaam yi ak àtteb ilimaan wala maamoom yi ak maamoom maanaam jiite ak àtteb kay jiite ak àtteb kañuy jiite waya umb dana jiite annaasa nit ña afdaluhum ka gën ci ñoom wa afqahuhum te gën jaa dégg fiq ci ñoom nee na bu fekkee ña fa tase ab lim lañ bu mat ilimaan kenn ku ci ne kon kenn ku ci jiite rek mu baax waaye nag ka ci gën nag te gën caa dégg fiq say boon jiital ko du tee nag kenn ku jiite mu baax wala ta umm du jiite almaratu jigéen fii faridatin fii faridatin ci li farata wala naafil caagéen naafila laa rijaalan du jiite ay góor wala lisaan du caagéen ay jigéen ilimaan moom neen dañuy sartu muy góor te bañ nekk jigéen jigéen moom dañuy jàpp ne du jiite du jiite góor du jiite sax jigéen ne moom te ñu wax daal lañ gën a dëgëral wa yaqraw dana jàng maxal imaam yi ànd ak ilimaan fii maa ca la nga xam ne yu siru dana yàllu fii ci moom wala yaqraw te du jàng maa ànd ak moom fii maa ca la nga xam ne yej xar dana biral fii ci moom dañoo taamu bu sa ilimaan de yàllu di wax ci suuf ngay wax ci suuf yow itam ndax sama xel dañu nekk ci leneen waaye nag bu sa ilimaan de biral moom ci yoonu maal dañu sit ngay jàng moo xam ne nga yelu rawante ne ngay jéem bëral di yëkkati bu selimaan dee bëral moom dool ti déggoo ko moo xam na ngaa sori moo xam kàddoom daa jógut lay sunna mooy nga ne pat déglu am njàngam ndax dañuy jàppale moom bu jàngee rek jàngal na la wa man adraka ku jot rek xaban abraka fa ak fara toppalu ko xad adraka kom jot na aljamaaxata mbooloo ma fa yaq dina fay baxda salaami imaam ci gannaaw salmal ilimaan maa la nga xam ne faatuha rawoon na ko xalaa nax yu maa ci mel li nga xam ne ci lu muroog la nga xam ne faxala defoon na ko al imaam ilimaan ba fil xiraat ci njàng ma wa amaa fi xiyaamin daal ci taxawaay ba wala juloosi ak jataay ba fa fi aluhu jëfam ka fi alil baani mi ngi mel ne jëfi aji jokk al musalli ji aji julli wax dafa moom rek nee na boo dikkee fekk ilimaan raw la kon na ngay seet ba xam boo ci xasee am lu matub ràkk rek xamal ne kon am nga julli mbooloo ga nga xam ne kon lañ wax ne julli mbooloo bay na ko julli kenn am nga tuyaaba jooja doo ko sañ a baam waat ci meneen mbooloo su ko defee nee na bu fekkee rawoon na la nag bu ilimaan sëmbalee la mu rawe woon da ngay taxaw temm ci fay ko ràkk bu ne lam ci jàngoon bu dee faasi ak saar moom nga cay jàng bu ko bëralee nga bëral ko bu fekkee dafa jàngoon ab ràkk faatixe kese boo ko dee fay faatixe kese nga ciy fay su bëralee nga bëral bu yeloo nga yeloo ci wàllu taxawaay bi ak toogaay bi nag moom doo seet ba xam fii ilimaan toogoon na fi wala fii toogu foofu da ngay seet rek foo xam ne yow sa ñaar la rek da nga toog foofa foo xam ne du sa ñaareel nag doonte ilimaan toogoon na fa yow bul fa toog mën nga koo misaale timis rek buñ la ci rawe woon ñaari ràkk nga fekk rek bu mujj ba kon xam nga boo jógee ba taxaw gannaaw bu ilimaan sëlmalee ràkk ba ngay njëkk a taxaw da nga ci jàng faatiha ak saar te biral ko ndax loolu moo nekkoon bu njëkkub ilimaan lam jàngan moom ngay jàng kon faatiha ak saar te biral ko waaye bu ràkk boobu jeexee da ngay toog foofu taaya te ilimaan toogu foofu ndax benn la woon ca moom waaye daa sopp ko yow ñaar ndax da ngaa fekk benn bu mujj kon boo ci tegaatee benn rek ñaar la ci yow nga daal toog foofu taay sa taay digg boo jugaatee ba taxaw ci sa taay jooju ci am ñetteel nga taxaw waaye da nga ciy jàng faati ak saar te biral ko ndax moo doonoon ñaareelu ilimaan ba mu rawee woon yow na la sopp ko sam ñetteel ci ci ne ci ne sa julli tëdd rek waaye ñaareel la woon ci ilimaan wa man sàllaa ku julli wax daxoo moom rek fa loxoo ñal na ko añ waxiida mu baamu fil jamaaxati ci mbooloo lil fadli ngir gëneel la fii daalika ci loolee ilal maxari ba mbëri timis wax daxa moom rek nee na bu fekkee da ngaa julli woon yow dong gannaaw ba nga gis mbooloo mu julli kon na nga baamu ca mbooloo ma ci kaw sopp rek ndax nga am ngëneelu mbooloo dañu wax ne julli mbooloo gën nga julli kenn ñaar fukki degari juróom ñaar benn addis ba ne ñaar fukki xaaji juróom kon nag boo julli yow dong gannaaw ba nga gis mbooloo ñu bëgg nga baamu julli ga ndax nga am ngëneelu mbooloo am na yaar yoo xam nag moom doo ko baamu ngir ngëneel mooy timis timis moom mooy benn ba boo xasee jul tam baax yow dong itam du tax nga baamu ko ci mbooloo ak gee boo xasee wetar gee bu fekkee wetaragoo mën nga koo baamu waaye boo xasee wetar moom doo ko baamu ngir ngëneel wa man adraka ku dab rakatan adraka fa ak sara toppalu ko min salaas jamaaxat julli mbooloo fala yusiduhaa du ko baamuwaat fii jamaaxatin ci meneen mbooloo nee na julli mbooloo go boo xasee am benn rakk rek dëgg la sax nga fekk woon lépp moo ëpp tuyaabu waaye boo si xasee fekkee benn rakk day mel ne jot nga julli mbooloo ga ba tax na doo mën a baamuwaat nag léegi ngir ne fekkee ma ca lépp léppi julli ga déedéet wa man lam yudrik koo xam ne jotut illa tashahhud dana retaaya aw sujjóot wala sujjóot fa laxoo ñeel na ko ay yuxiida mu baamu fii jamaatin ci am mbooloo nee na bu fekkee rakk mujj ba ci nga ñëwoon te fekkee woo jàpp ci woom ya xam ne kon amoo lu matub rakk sax ngaa fekk lu mel taaya ak sujjóot yooyu kon boo gisaatee mbooloo muy julli mën nga caa baamu ndax nga am ngëneel war na julli góor alwaaxidu gu liggéen maxal imaam ànd ak imaam yàqu mu day taxaw xan yamin yi walis nday jooram bu fekkee ne ilimaan moo fi nekk ak kenn ku góor kuy julli ànd ak moom kon kookee di góor di ànd ak ilimaan day taxaw ci nday jooru ilimaan te bañ a lànga moom dëgg-dëgg xaw koo féeti gannaaw tuuti day dem ba xaw a lànga moom te bañ a lànga moom dëgg-dëgg ca nday joor lay féete itam ba yàqu mu dana taxaw arrajulaani ñaari góor faak saru topp lu ko xal faxoo ci gannaawam fekk ilimaan dafay nekk ak lu mat ñaari góor mbaalu ko kon ilimaan day nekk ci kanam ñaari góor ñu baalu ko taaw ci gannaawam fa in kaaran dem nekk na imraatun jigéen maa xuma ànd ak ñoom ñaar xaamat mu taxaw xalfaxumaa fu seen gannaaw ñoom ñaar bu fekkee ne ñaari góor dafay nekk ak ilimaan ak jenn jigéen kon ilimaan day taxaw ci kanam ilimaan day taxaw ci kanam ñaari góor ña rang ci gannaawam ilim jigéen ja jigéen ja taxawaat ca gannaaw ñaari góor ña kon ilimaan a fi nekk ak ñaari góor ak jenn jigéen na ilimaan taxaw ci kanam ñaari góor ña rang ci gannaawam jigéen ja taxaw ci gannaaw ñaari góor ña wa in kaana dem nekk na maa xuma ànd ak ñoom ñaar rajulum góor salla kon mu julli xan yaminu imaam walis ndajoor imaan wal maratu jigéen xalfahuma wa seen gannaaw li mujj wax ni moom mooy genn góor a fi nekk ak ilimaan ak jenn jigéen da nga weesoon moom ilimaan dafay nekkoon ak ñaari góor ak jenn jigéen fi nga toll nag moom genn góor a fi nekk muy ilimaan ak genn góor muy maamum ak jenn jigéen ba tey kon su boobaa genn góor ga fa nekk day taxaw ci ndeyjooru ilimaan te bañ a langa moom dëgg-dëgg xaw a dem ba tolloog moom tuuti taxaw ko des gannaaw jigéen ji nag taxaw fu seen gannaaw ñoom ñaar maanaam taxaw fu gannaaw ilimaan ak genn góor googee wa man salla ku julli bi soo jot yi ànd ak soxnaam xaamat mu taxaw xalfahoo fu gannaawam ku julli ànd ak sa soxna itam du tax sa soxna làng ak yow day taxaw fi sa gannaaw rek wa sa biyu gone ga insalla dem julli na insalla dem julli na maa rajul ànd ak góor waaye ngu di génn xalfal imaam yi ci gannaaw ilimaan xaamaa kon ñu taxaw ñoom ñaar xalfahoo fu gannaawam in kaana dem nekk na asabi gone ga yaqilu di xellu nga xam ne laa yadhabu du dem waaye dafa tamit bàyyi man ka nga xam ne yàq sa dana taxaw ma xaw ànd ak moom nee na bu fekkee ne ilimaan dafay nekk ak genn góor goo xam ne mag la ak benn xale muy xale bu góor kon bu fekkee xale bu góor ba yeewu na ci wàllu jaamu yàlla ba du julli ba yàgg muy dem di fooye mbaa dara kon ilimaan day taxaw ci kanam góor gi nekk mag ak xale bi daal di rang ci gannaawam bu fekkee nag xale bi ay mbiram wóorut amagul moom xel ci wàllu jaamu yàlla kon nañ bàyyi góor gu mag mu taxaw ca ndeyjooru ilimaan ñu bàyyi xale bu fu ko neex rek taxaw wal imaamu ilimaan ba arraatib bay aji sax in salla ndem julli na wax dafa moom rek xaama kon taxaw na maqaamal jamaaxa taxawaayu mbooloo ilimaan ni raatib mooy ilimaan joo xam ne mbooloom jullit ñoo ko doyloo fal ko ne ko deenu jiite mbaa ka tabax jàkka ja moo ko wax ne ko deema jiite jàkka ji kon jàppal ne ilimaan ni raatib moom bu jullee moom dong itam teewu koo taxaw taxawaayu mbooloo nga boot dañoo wute woon ci bu la kenn képp jiite yéen ñaar ngeen ànd ndax ñaar ñooy mat na mbooloo wala matul mbooloom déet waaye jàpp nañ ne bu dee ilimaan ratib moom natt lu ñu ne dal na nekk mbooloo te mel na moom dong itam bu jullee ca biir ba mu daan jullee ci waxtu wala jullee itam day mel ne mbooloo julli na fa nga xam ne gannaaw lu mbooloo mi ñëwat lu mat ñaar mbaalu ko ëppit dañuy kenn kenn mbaa ñu génn ci biti waaye mel na moom dong bu fa jullee day mel ne mbooloo julli na fa kon jàppal ne ilimaan ratib moom bu jullee moom dong itam teewu koo taxaw taxawaay mbooloo wala ko dafa def na sit fii kulli masjid ci bépp jàkk loxo boobu ñeel na ko imaamu imaam raatibun bi aji sax an tujmaxa bu dee fi boole fii ci moom asalaatu julli ga maratayn yaar yoon nee na jépp jàkk joo xam ne am na ilimaan raatib bu ilimaan raatib ba si jiite mbooloom ba àggal ñaar ñëweti mbaaloo ëpp ñaar dañuy génn ci bitti def mbooloo te loolaa gën mbaa boobu ñu julee ci jàkk ja na kenn ku ne ber julli boppam ndax dañuy bañ ilimaan ji julli ak mbooloo ba noppi ñuy parparloo ke mel mbooloo ñëwati ci waa dëkk ba am ku leen jiite fa ilimaan doon jiite ci jenn jàkka ji loolu day indi ak xaajalikoo ak bañanteeg sotanteeg xeebante am nañu sax bu dee ñoo xam dëkkuñu fa dañ faa romb rek jàll mën nañ faa def mbooloo ci waxi ñooñu wa man salla ku julli salaatan ak julli falaa ya umm kon du jiitewaat fii xaaj julli ga ahadan kenn boo ko see julli julli goo xam ne baax na nga xam ne safarat wàcc na la doo ci mën a jiitewaat keneen maanaam boo bëggee baamu ngir nga leen da ngay roy am ku la jiite waaye yow bul jiitu ndax yow yàqu naa fi li yéen a yemoo mel ne bu fekkee da ngaa jiwal yow dong bëgg am nga leen mbooloo tax ngay baamuwaat ngay bàyyi ka nga xam ne moom jullee gu doon benn yoon mu jiite te yow nga bañ a jiite waaye boo jiitee yow da nga baaxle waaye ñoom duñ baaxle wa isa saxaandeem juum na alimaamu ilimaan ba wa sajjada te mus joot li sax yi ngir juumam ba falyetta bi na ko topp man ka nga xam ne la wees fu juumut maa xaw ànd ak moom mi man ci képp koo xam ne xalfafoo nekk na ci gannaawam sa ilimaan daal moom fekkee xas nga ànd ak lu matub rakka jamono bu ko war rek daal lay war dañuy seet nag ba xam bu fekkee xabla salaam la njëkk salmal la nga ànd koo moom bu dee baxa salaam te raw la nag moom ngay bàyyi bu fay la mu rawee ba noppi nag ba sëlmal door a def baxdu salaam ba waaye doonte fekki woon njuumte la sax waaye fekk nga julli lootu baraka rek moom njuumte bu ko war rek war la yooyu si bopp itam boo juumee loo xam ne bu la yow dong ñu digal la ci sujoot ba tey gàddu na la ko du aajoo nga di ko sujootal waaye nag gannaaw boo juumee bay fay nag moom boo juumee itam du ko gàddu da nga ànd ak moom lay gàddu waaye du du gàddu la nga xam ne àndoo koog moom wala yu dafa du yëkkati ahadun kenn rasahu boppam xam ne imaam yi jëkk imaan wala ya fawte du def illaa bax da fii fi nga da ci gannaaw joxam ja damay njëkk a takk ne am na yaar yoo xam ne boo ko defandoog sa imaan mbaa mu njëkk koo def sa julli yàqu mooy tàmbali allahu akbar ak sëlmal asalaamaaleykum yooyu yaar moom boo ko defandoog moom mbaa nga njëkk koo def sa julli yàqu yi des na nga xam ne farata la ni ki njëkk koo rukkoo mbaa njëkk koo sujjóot yi demee noonu nag araam na waaye ndax julli yàqu moo tax mën naa la bu yëkkati sa bopp njëkk mu yëkkati bul def dara lu may gannaaw bu defee moo tax mën naa ba yaftatixu dana tàmbali baax doxoo ci gannaawam tàmbali boobu mooy allahu akbar armal ji moom ni ma ko waxoon nga bàyyi ba mu def ko ba noppi wa yoqoo mu gën a jóg mu gis na tey ni bàyyi ko ci ñaar rek baax da xiyaam yi ci gannaaw jógam nga su ilimaan amee ñaar jóg jëm ci ñetteel daal dañoo bëgg nga di ko teylu bay jóg bañ def dara di ko seetaan rek su jógee nag ba taxaw jonn ba nga dégg allahu akbaram nga door a tàmbali sab jóg yooyu itam boo tàmbalee sab jóg lu wax allahu akbar ngay bàyyi ba taxaw jonn door a wax allahu akbar loolu sopp nañ ko boo ko defee noonu du ko tee baax waaye sopp nañ noonu wa yusallimutu muy salmal baxada salaamihi ci gannaaw salmalam ba waxan naa ko léegi salmal moom boo ko defandoog moom baa nga njëkk koo def rek sa julli yàqu wa maa siwa zalika lu dul loolee fa waasimun aji dagan la ay yaf xalahoo mu def ko maa xoo ànd ak moom wa bax dafa waaye gannaawam nag bu mu defee ba noppi ahsanu moo gën rafet maa lu bokk tëg asalaamaaleykum ak tàmbali ba muy allah akbar nga njëkk ko def wax nañ ne araam na nga defal ko moom itam sib nañ ko nga bàyyi ba mu def ba noppi nga gaaw fekk ko ca loolu lañ gën a taamu wa kullu sahwin bépp juum saxaahu boobu juum na ko almaamum ma amoom fal imaam ilimaan yaxmiluhu dana ko yenu xan walis ko daa ko teel a wax léegi te agsee ko ci woon maanaam boo juumee njuumte loo xam ne bu doon yow dong ñu digal la ci sujoot boo ànd ak ilimaan ilimaan dana ko gàddu du aajo nga di ko sujootal mel ne nga ànd ak ilimaan te bàyyi wax allah akbar ñaar mbaa ñett wala bu doon yow dong mu am sujoot waaye bu ànd ak ilimaan ilimaan gàddu ko illaa rak xatan dare ab rakk aw sajdatan ba ab sujoot aw takk biirat ihraami aw takk biiratal ihraami mbaa kaabal armal aw salaama wala salmal aw i'tiqaada niyatin faridati wala fas yéene farata ja ci gàttal li daa bëgg a wax ne ilimaan mën na laa gàddu lu bokkut ak farata farata moom boo ko bàyyee ilimaan mënu koo gàddu farata mu andi rek ni ki boo bàyyi ràkk lëm mbaa ab sujjóot mbaa foroo def kabar armal mbaa waxoo asalaamaaleykum mbaa yéene woo yooyu farata lañu ilimaan mënu koo gàddu ilimaan moom loo xam ne sujjóotu jamono rek mën na koo defar loolu la mën a gàddu wa ida sallama ndem salmal na al imaam ilimaan ba fala yasbut kon bu mu sax baxda salaamihi ci gannaaw salmalam ba wala yan sarif na walbatiku nee na ilimaan bu jiitee bu salmal taamuñ mu toogaat lu yàgg ca fam toogoon di jiite xanaa rek su salmalee daal ba ne allahumma anta salaam wa minka salaam tabaarakata yaa dal jalaali wal ikraam dañoo bëgg mu daal di walbatiku rek bañ a toog nam toogee woon rek xanaa wëlbatiku jublu ndeyjoor bu ko mënee moo gën waaye dañoo bëgg limaan bu sëlmalee ba wax loolu ñu wax léegi mu wëlbatiku jublu wetu ndeyjooram loolaa ci gën bu dul loolu itam na soppi ab jotaayam bu nam tooge woon rek bu mu tooge noonu wéy illaa an yakkoon rek bu dafa nekk fii maxallihi ci bérébam bu fa zalika loolee waa sin aji dagan la lu may na nga xam ne da doon jullee ci béréb bu boppam nekkutoon ci jàkk mbaa fu ko mbooloo di fekk kon mën naa sëlmal ba noppi nag du tee mu toog nam tooge woon rek noona ba tey nee nañu sopp ñu gannaaw bu sëlmalee moom ilimaan mu tàllal ay loxoom ñam doon jiitee dam tàllal seeni loxo moom muy ñaan loolu taamuwuñ ko dañoo bëgg rek kenn ku ne ñaan ñaanu boppam su fekkee daana ko def nag ba noppi bëgg koo bàyyi day xamal mbooloo mu ne leen ñaan gi kat far naa ko dugal ci biir taaya ji mooy su ma dee taaya bala maa sëlmal rek foofu laay ñaane kon ñaan ga ma daan def su ma masaa sëlmal ba noppi kon xam leen ne def naa ko ba noppi baabun li ab bunt la jaamixun bu di aji boole fi salaati ci julli bunt la boo xam ne daa boole masala yu bari yu bokkut te aju ci julli wa aqallu ma gën jaa néewi la nga xam ne yu ji siwu dana doy almaratu jigéen minan libaas ci koddaay fi salaat ci biiru julli fi salaat ci julli ak dirxu mooy mbub ma alxasiifu may aji tal azzaabixu may aji jot allasi ma nga xam ne yasturu dana suturaal duxoora xadamay xaa bitib yaari ndëgoom ya waxoo moom ak dirxu nag alxamiisu mooy mbubu wal ximaaru ak mu muuraay alxasiifu guy aji tal ci ne jigéen moom bu dee julli war naa sàng awraam yëpp te yaramam yëpp awra la ba mu des kanam gi tenq yi kon nag war naa sol yooyu tal te jot sëkk ba buubu ci kaw ndëgg ya muuraale muuraay goo xam ne moom it day nekk muuraay gu tal bu nga xam ne rek léegi kanam ak tenqam rek moom lay sañ a feeñal mooy gis yi dana doy arrajule góor fi salaati ci julli taw bu malaan waaxil mu du menn góor nag moom awraam mi ngi tàmbalee jumbo xam ba ci bëti woom rek nga xam ne kon sàng awraam yomb na kon moom benn yére rek bu ko amee mu doy boo xam ne sàng na awraam teewul nag sopp nañ mu rafetal col ga ànd ak teggin ndax kanam boromam bi muy taxaw wala yu xab tii du muur an faxoo ba kanam aw wajhahu wala kanamam fi salaat ci julli ga aw yab dumm wala muy tàppe tàppe mooy lem rek fiyaabahu ay yéreem aw yekk fitu wala muy lem shahrahu kawaram daa wax ne ku mën di julli ku mën doon nag taamuñu muy muur ba kanam wala kanamam dañu bàyyi dañoo bëgg bàyyi kanam nga ak bakkan bañ caa muur dara ba tey taamuñu ngay bëgg a julli rek daal di yokk say yére ndax bañ yére taq suuf mbaa lu mel noonu mbaa bu dee bu dee borom kawar yu guddi yi mel ne naar yee yooyu ñu lem seeni kawar ndax ndax rek bañ mu taq suuf mbaa yu mel noonu ba tey loolu taamuwuñ ko te ma ne ko loolu ak sib lay doon lu mel ne daa fekk ñuy liggéey ba tax ñu lem seen yére mbaa ñu lem seen kawar ba ñu julli nag far wéy ca noonu rek julliwaale noonu xam ne julli ko waralul lem nga yére ya mbaa lem nga kawar ya mbaa lem nga kawar ga loolu kon du wàññi dara bokku lu saxin bépp juum fi salaati ci biiru julli bi siyaaritin ci dolli falees jut falees jut na sujjóot la xoo ñeel ko sajida tey ni ñaari sujjóot ba xam di salaam ci gannaaw sëlmal yetta shahab dana taaye laxumaa ñeel leen ñoom ñaar waaw yetta shahab dana taaye laxumaa ñeel leen ñoom ñaar wa yu sallimu te muy sëlmale min xumaa ci ñoom ñaar daa wax ne bu fekkee dangaa juum ba yokk ci julli gi waaye yokkub kese la kon na ngay sujjóot ba xam ne salaam ba xam ne salaam mooy da ngay julli ba taaye ba sëlmal daal di sujjóot ñaari sujjóot nag dellu taayewaat sëlmalaat ñoo bokk wa kullu sahin bépp juum bi naqsin ci wàññi falees jut na sujjóot la wàññeel ko xabla salaam yi njëkk sëlmal isa tàmm ndem mat na tashahudu xoo taayaam ja tuma ya tashahadu topp dana taaye wayu sallimu tamuy sëlmal waxi la waxees na it ne laa yoo du baamu ak tashahuda taaye ja bu fekkee da ngaa juum nag ba wàññi ci julli gi niki nga fàttee jàng aw saar mbaa nga fàttee taayu taayu digg loolu wàññi la kon da ngay sujjóot xabla salaam xabla salaam nag mooy da ngay julli di taaye di taaye ba des asalaamaaleykum bala ngaa wax asalaamaaleykum nag nga sujjóot ñaari sujjóot daal di baamuwaat taaye ja nag door a sëlmal léegi mu ne am nañu ne doo baamu taaye ja teewul baamu ko taaye ga sopp nañ ko ndax dañoo bëgg rek sëlmal bi topp taaya wa man naqasa ko wàññi wa zaadate mu dolli sajada mu sujjóot xabla salaam yi njëkk sëlmal koo xam daa dolli ci wet wàññi ci wet lu bare bari mu am ci julli xam ne yokk na fee wàññi na fee su boobaa day ëppal doole wàññi ga daal sujjóot ba tey xabla salaam waman na see ku fàtte an yasjuda mu sujjóot ba xabla salaam yi gannaaw sëlmal fale yasjud na sujjóot matama dakkaraho saa yu ko fàttalikoo wa intaala ak doonte yàggoon na daalika loolee yene bu fekkee dañ laa digaloon sujjóot ba xabla salaam ndax dangaa yokkoon ci julli ga nga fàtte ko nag lu mu yàgg-yàgg rek kon saa yoo ko fàttalikoo te amee ak laab rek na nga ko daal di def ndax moom toroxal seytaan rek la ne julli gi matoon na ba am loo ci yokk wa inkaana ndem nekkoon na nag xabla salaam yi di njëkk sëlmal sajada mu sujjóot ko inkaana ndem nekk na xariban di aji jege bu fekkee da ngaa wàññi woon mbaa nga boole woon wàññi yokk ñu digaloon la sujjóot xabla salaam yow nag nga sëlmal far ba fàtte ko waaye nag yàggut kon na nga koy def rek sopp ko ne ba xabla salaam waaye du ci wàññi dara loolu nag mooy bu fekkee yàggut wa in baxu da ndeem yàgg na ibtada amu sosaat salaatahu julleem ga bu fekkee ne nag dangaa wàññi woon loo xam ne mat na ñetti sunna ñu digaloon la nga sujjóot ca xabla salaam nga fàttiku bi sëlmal te mu yàgg nag kon moom julli ga day yàqu bu fekkee li taxam ngay sujjóot xawla salaam muttoon ñetti sunna nag niki benn la woon niki benn la woon mbaa ñaar waaye muttoon ñett te xas na yàgg te defoo ko da nga koy far bàyyi noonu rek te du tee julli ga baax na moom lay wax naa illaa an yakkoon rek bu dafa nekk daalika loolee mi naq shay'in ci wàññi dara xafiifin luy aji woyof ka suurat niki saar wa maa ummil quraan yi ànd ak fatiha aw takbiratayni wala ñaari kàbbar aw it tashahhudayni wala yaari taaya aw shifi daalika wala mu roog loolee wala mu roog loolee falaa shay kon di dara xale yi di ko war bu fekkee lam wàññi woon bañ digal ko sujjóot xable salaam day ñaari sunna rek mbaa muy benn kon bu ko see fàtte itam yàgg rek da koy far bàyyi noonu mel ne mu fàtte woon a wax ñaari allahu akbar wala mu fàtte woon a wax ñaari sami allahu liman hamida yi mel noonu yooyu li mu ko bëgg a misaale nag mel ne saar wi ànd ak fatiha moom mat naa teylu ndax dañoo wax ne saar wi moom soo ko bàyyee li ci ëpp da nga bàyyi yetti sunna ndax jàng saar wi sunna la taxawaay ba sunna la yaru yalu ga mbaa biral ga foofu tu ci nekk sunna la kon soo ko bàyyi ñett lay doon yaari taay itam xam nga benn taay bu ci ne ñaari sunna nga ca su bàyyee ñaari taay kon day mel ne yéenti sunna lay bàyyi kon tuddaal na ko foofu waaye na nga nemmi ko wàlle yooyu yaar ndax ndegam taay bu nekkul jataayam sunna la bu ci bàyyee ñaari taay kon ñeenti sunna lay doon wala yu gisi du day sujjóotu sahwi sujjóotub jamooj li naq si rek xati ñeel wàññi ab rakka wala sajdat du jaay goon ab sujjóot nee na nag bu fekkee da ngaa juum ba wàññi rakk bi lum wala nga wàññi sujjóot bi lum li gën a gàtt rek mooy nga ne da ngaa juum ba wàññi rakk mbaa farat rek moo gën a gaaw su boobaa sujjóot mënu koo defar andi ga rek moo koy tax a baax bu fekkee andi ga wees na nag mënu su ko dabaatal mënu su ko def nee na julli nga yàqu waaye mënu su ko sujjóotal moom wala li tarkil xiraat du caa génn ñeel bàyyi jàng ga fi salaat ci julli ga kulliha léppam ba tey fekkee ne sa julli amul fatiha benn yoon loolu jublu ci bàyyi jàng gi fekkee ne sa julli gi jàngoo ci fatiha benn benn yoon marché nañ ci ne loolu sujjóot mënu koo defar aw fii rek xatee ni wala ñaari ràkk min xaaj ci julli ga ba tey bu fekkee ne julli ga xaaj ba ci bopp amul fatiha maanaam benn daal la ëpp ci julli ga amul fatiha ca ràkk ya mbaa boo ko xaajee ci digg ba benn xaaj bi amul fatiha kooku itam nee nañu wax ji gën a wër mooy sujjóot mënu koo defar wa kasaalika naka noonee fii tarkil xiraati ci bàyyi jàng ga fii rek xatin ci benn rakk mi ne soppi ci suba xam nga suba moom day ñaar dong kon bu fekkee ni benn rakk bi jàngoo ci fatiha kon xaaju julli ga amul fatiha rek ci gàttal loolu moo nga bàyyi woon ñaari rakk yooyu jàngul fatiha ci julli ñeent rakk mel ne tisbaar mbaa takkusaan ñooyu moo képp kooku maasé nañ ci ne moom it sujjóot du ko mën a defar fi mu wutee kay mooy la ëpp ci julli ga ay rakkaam am na fatiha la ci gën a ñëw nag moo amul fatiha wala bëgg a wax waxtu li fa wuteef na fi sax wi ca juum nga am xiraati wala si jàng nga fii rek xatin ci benn rakk min xëyrihaa ci lu dul suba xam nga bu fekkee du julli suba mu am ca benn rakk képp boo xam ne jàngoo ca fatiha kon li muy tekki mooy lu ëpp ci rakk ya am nañ fatiha la ci gën a néew ci rakk yi moo amul fatiha mooy benn rakk rek daal ci gàttal ci nga jàngul fatiha mel ne bu doon tisbaar benn rakk amul fatiha wala bu doon timis benn ko ci amut wala bu doon gee benn ko ci amut boo suba moom nee noonu la moom boo ci benn ñàkkee xaaj ba ñàkk na ko ci julli ga waaye nag ku bokkut ak moom am ci benn rakk boo jàngul fatiha ci lañ wute te xëy na waxees na ne yu gis dana doy fii ci moom sujoodu sahwi sujoodu jamooy ba xawle salaam yi njëkk sëlma benn waxangoog am nañu ne bu fekkee benn rakk rek ci nga jàngul fatiha boo ko sujootalee xawle salaam rek mu daal di wecc jàng fatiha ja wax yi la waxees na ne yu dox yi xaa day wecc rakk boobee way atiitoo mu njëkkee bi rek xaatin ci ab rakk jooju wax nag moo dëppoonteeg takk-takk yi daan joxe maanaam bu fekkee ne am na rakk boo xam ne jàngu ca fatiha te dabaatal ga wees na kon dara su ca lu may wecc boobu rakk bañ ko limaale te andi beneen mu wecc ko ko defee nga sujjóot ba xam salaam nag waaw kay loolu mooy li nga xam ne moo dëppoog takk-takk yi wax yi ne waxees na ne yes bi dana sujjóot xam ne salaam njëkk salmal wala yu ëtti waaye du andi bi rek xakk ci ab rakk wayu xiidu day baamu nag asalaatu julli ga ixtiyaatan ngir léemtu ngir def la gën a wér am na ñu ne day sujjóot xable salaam mel ne ku koy defare njàng ma bàyyi ci ràkk boobee ba noppi nag baamuwaat julli ga ngir def la gën a wóor de sax moom du andi ab ràkk na nga wees woon ci bee wala yet yi bi rek xaatin maanaam wax boobu dane ràkk ba nga xam ne ca la jàngul faatiha du ko weccee beneen day sujjóot xable salaam rek yem ca mel ne ku koy defare ràkk booba xam ne kon julli ga wëcc ko defare na ko sujjóot xabla salaam ba daal taay sëlmal nag ba noppi nag baal waa julli ga nag ndax def la gën a wér moom nag moo ci gën a sonle waaye moom mi taalif nee na waxee saa ji nga wax ahsanu zalika mooy gën jaa rafet loolee incha ndéem soob na allahu yàlla taala kawe na moom nag moom daa jàpp ne booboo ci gën waaye bi ci gën a dëppoonte takk-takk daal mooy da ngay bàyyi boobu ràkk weccee ko beneen bu ko defee nag yokk nga nga sujóot wax bi salaam foofu nag nga seetlu ne bu fàttaliku woon ne moom jàngul fatiha te fekk dabaatal ga wéegut kon da koy dabaatal te loolu mooy bu fekkee nam taxawee rek laata muy sëgg di rukkoo ba siggi ca taxawaay ba daal nay fàttaliku ne moom kat jàngul fatiha kon day daal di jàng fatiha doonte fekkoon na mu jàng saar wa it day jàng rek fatiha am na ñu ne bu noppee day baamu saar wa am na ñu ne déedéet du baamu saar wa waaye lu mu ci mën di am moom ndegam mi ngi taxaw rek rakk bi fa soogut kon na daal di jàng fatiha ja nañuy xàmmee ne dabaatal ga wees na nag mooy mu rukkoo ba siggi door a fàttaliku ne moom kat jàngul fatiha foofu moom fala dabaatal ga weese boo xoolee sarabale moom day wane ne bu fekkoon